والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak i saxaabaam dellu neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndao di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmed Samb tabarakallahu ñu ngi ndokkeel al oustaz Alioune Sall ci tafsiram bi nga xam ne tey la am ñaari at ngi ñaan yàlla na ko ci yàlla jàppale defal ko ci tawfiq te barkel ko mu mel ni mbokk yi ñu ngi woon ci histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñu ngi woon ci siira génnoon nañ ci xare badar ak li ci xewoon gis nañu ne yonent bi ñi mu jàppoon ñu di ay jar-jar ñu di ay jaam yu mu jàppoon ci xare bi ñii rey na leen ñii jëflante na ñoom ci njëkk ñii jël na ay xale jox leen pour ñu jàngal leen ndax loolu nekk seen njot ñii daf leen laaj alal mu mel ni gannaaw nag mbir moomu naqar bu rëy am na ci waa Quraysh mu di yéeféer yeeg jóge woon màkk ba loolu dana waral xare bu rëy ca kanam ñu tuddee ko xare Uhud diggante bi nag diggante Badar ak uh, Uhud am na xare xare yu ndaw ndawaan yu nga xam ne am na ci loo deme niki ki xazwatu bani qaynuqa xazwatu bani qaynuqa mu ngi amee ci atum ñaareel ma ci gàddaay di tolloog 624 miladiye ci at mi yonent yàlla Isa judd Qaynuqa turu giir la ci yahud yi yi dëkke woon Medinatul Munawwara amoon nanu marché bu nga xam ne dañ leen ko tudde woon mu di suuqu bani Qaynuqa ñoom nag ay yahud leen yu nga xam ne allié leen woon ci xadraj ak nee na itam allié leen woon ci Ubaadatu Samit ak Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul maanaam ñoom yahud ñooñu ay dëgg lañu woon yu nga xam ne dañ daan defar ay jaaseek tabarkalla ay fettaki arme loolu moo doon seen métier ñu ngi dëkke woon bokkoon neen itam ci ñi gën a riche ci ñi dëkke woon Medina mu mel ni bi yonent bi jóge Badar yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne nanu dajale yahudu bani Qaynuqa mu waxtaan ak ñoom lii la leen wax moom yonent bi bi ñu dajee daf leen wax ne yaa ma'shar al-yahud ihdaru min allahi azza wa jal mithla ma nadala bi quraysh min an-niqma wa aslimu fa innakum qad ariftum anni nabiyyun mursal tajiduuna dalika fi kitaabikum wa fi ahdillahi ilaykum mu ne yéen yahuutu bani qaynuqaa moytu ndiku leen yàlla ndax kat musiba bi dal waa Quraysh lay bañ mu dal leen yéen ñooñ téere ngeen am ngeen ay yonent seeni yonent li mu leen wax moo di ne su ma ñëwee na ngeen ma gëm ndax maa di maa nekkoon annabiyul muntazar yonent bi ñépp doon xaar yéen nag yéen a ma gën a xam ndax jàng ngeen ma ci seeni téere nga lawaay bu leen topp àdduna ba wuuteeg sama ndigal bu ngeen ko defee li dal Quraysh ca Badar dana leen dal bis bi mu waxee ba daaneel kàddoom ñu ne ko yaa Muhammad innaka tara annaka qawmik ñu ne ko yow Muhammad yow daal danga nga foog ne ñun dañoo ñàkk fayda ñàkk njariñ kom sa mbokk yi dëkke Makka gañe gi leen gañe tax na nga foog ne boo xeexeek ñun dag ñu gañe ne ko bul waru ndax ñi nga dajeel xamuñu xeex mënuñoo xeex occasion bi nga am ci ñoom ba gañe leen loolu bum la trompe maa ngi lay yëgal ni saa soo takkoo pour na ma xarek ñun su boobaa da nga dajeek jàmbaar yu nga xam ne daneen la nërmeel kon nag ñu ngi lay yëgal ne ñu ngi takku di la xaar foo ñu woo rek ñu fekk la fa kon yahut yooyu ñoom dëkk nañu yonent bi fas yéene xeex moom waayante fas yéene wuñ koo gëm mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàpp na njàmburam wante mu ngi xaar rek ndigalu yàlla ci ñoom wante lu jiitu yonent bi di joteeg ñoom ci dara am na benn xew-xew ndax dafa am benn jigéen bu ñëwoon ci marché bi ci marché Bani Qaynuqa bi mu ñëwee mu fay dox benn mbir benn yitteem fi mu toog ndeke benn yahud gis na ko mu def xijaab maanaam muuru ni jigéenu jullit ñi di muuroo ñu koy saboté ci muuru bi mu muuru wante nag la gën a yéeme ci mbir ma mooy bu ñu yeboon ci sabot saboté bi rek mu baax wante robb bi ndaw si soloon dafa nekk rob bu gudd te rëy ñaari arab yi seen rob yi ñuy sol dafay rëy te yaatu rob bi ni mu toogee mu lalu ci suuf benn yahut doxe ko gannaaw daal di jël cetu rob bi yëkkati ko ba mu tolloog baat ba mu pinge ko ca nga xamante ni bu ndaw si jógee awraam li ci féete gannaaw yëpp dafay feeñ ndaw si daal di jóg awraam feeñ te yëgu muy dox rek fu muy jaar rek nit ñi xaxatay daanu ndekkee am na benn jullit bu gis juif bi bi muy def loolu ndaw si bi mu sentire ne ndekkee awraam a ngi feeñ mu yuuxu jullit boobu nag moo tëb fekk ka jëloon ping ba pinge robb ndaw si jullit ba rey lu tax ndax kat ay yéeféer ñoo bëgg a gàcceel lislaam looloo tax waa ji daal di jóg rey yahut boobule ndax yéeféer la rey na ko ndax dimbale na itam ku ñu tooñ bi mu ko reyee nag yahut yi ñoom itam daal di mer ndax marché boobu marché yahut yi la woon yahud yi daal di koy attaqué bi ñu attaqué waa ji nag daal di koy sëxatoo rey ko loolu nag metti julit ñi bim leen méttee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takk na xare encerclé na quartier bi nga xam ne moom la yahud yooyu dëkke woon pour na ma xeex ak ñoom kenn génnul ba ñu demee ba jaaxle am na ku ñuy wax Abdallah ibnu Ubay moom mi nga xam ne xarit la woon ci ñoom ndax moo allié woon ñoom ci jaahiliya moo ñëw nag ne yonent bi dama bëgg nga bàyyi leen ndax kat soo daleen ci seen kaw du baax topp yonent bi di ko lakkal ba yonent bi mujj ne ko demal nga ànd ñoom wante yàlla bu yàlla barkeel seenuk ànd ci la digal nag Ubaadatu ibnu Saamit ne ko nanu génn Medina ci lañ leen génne madina nag nangu seen alal ya bàyyi leen ñu dem ñoom nag ñu génne madina ñu ngi dem ardu Sham mujj Syrie loolu itam ci diggante Badar la ak uh, Uhud mu mel ni Ummu Kalsum mi nga xam ne yonent bi moo ko jur gannaaw bi Roqaya faatoo wax ne ne ci leen ko may Ousmane Ibn lu tax ñu ni ndax bi tabbat yada abi lahabin wàccee yàlla xas ci abu lahab mi nga xamante ni moom bàyyi tax la ci yonent bi ndax papam ju ndaw la Abu Lahab dafa mer ndax booba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jël ñaari doomam mu di Roqaya ak Umu Kalsum mu may leen ñaari doomi Abi Lahab pour rek jokke ko mbokk gi ndax Abu Lahab bàyyi tëx la ci moom papa ndaw la ci moom kenn ki mu may ko ba keneen ki ci des mu may ko Utayba bi nga xamante ni nag tabbat yadaa wàcc na xas yonent bi xas eh, abu jahlin yàlla xas ko ci moom abu lahab dafa mer daa wax ñaari doomam yooyu ne leen ñaari doomi muhammad yi ngeen takk maa ngi leen di yëgal ni su ngeen leen fasewul danaa dog ak yéen àdduna ak àllaaxira seen yaay itam umu jamil wax loolu xale ya daal di leen di fase lu jiitu ñuy joteek ñoom ci dara kon nañ leen tam takkee woon ñu di jànq noonu leen leen fase ba ñu leen fase nag ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jël Roqaya may ko Ousmane bi mu faatoo ci e, gannaaw xare Badar bi mu faatoo ba Seydina Ousmane denc ko ci leen ko mayaat nag ci leen ko may Umu Kulsum ginnaaw si gi yonent bi sallallahu alayhi ci weeru Shaaban ci at mi ci la takk itam Xafsa Xafsa nag soxnaam la woon yonent bi sallallahu alayhi mu ngi ko takk ci weeru Soobaan Xafsa moomu Omar ibnul Xataab ko jur amoon na jëkkër ndax ku ñuy wax xune euh, xuney subnu xadafa moo ko takkoon wax ne ne bi mu faatoo la ko yonent bi sallallahu alayhi wa denc wante Omar ibnul Xataab lu jiitu yonent bi di ko denc gaaraloon na Abu Bakar pour mu denc ko ne ko daal sama doom ji Xafsa dama bëgg daal su fekkente ne soxla nga ko daal ma may la ko soxna wante Abubakar ni Siddiq wuyuwu ko ci loolu maanaam nanguwul mu gaaral ko Sidna Ousmane Sidna Ousmane itam nanguwul Sidna Omar daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ko koy wax yonent bi ne ko inna allaha qad dawaja Ousmana xayran min ibnatik wa dawaja ibnatak xayran min Ousmane mu ne ko Ousmane Ibn Affan du mën a takk Hafsa ndax Umu Kalsoom mi ma ko may moo gën Hafsa kon nag Ousmane am na ku gën sa doom wante maa ngi lay yëgal ni itam sa doom dana am jëkkër ju gën Ousmane su fekkee Ousmane am na jabar ju gën sa doom sa doom Hafsa dana am jëkkër ju gën Ousmane mu ne ko kon. tabaarakallaahu danaa ko denc mu di sama soxna moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa moo mujj denc Xafsa moo tax ñu ni ginnaaw bi mu dencee Aïcha ba noppi nag la denc Xafsa mi kon Aïcha la njëkk a takk sokkee teg Xafsa euh, ñu ne am na benn juif bu ñuy wax Kaab ibnul Ashraf juif bu bon la woon mu ngi dëkke woon Medina bi nga xamante ni jullit ñi gañe neen ci xare Badar ba yonent bi yebal Zayd ibnu Haarisa ne ko demal ci Medina nga wax leen ni gañe nanu te jàpp nanu ci ñoom ay kilifa yu nga xamante ni dañ leen jàpp ñu di ay jar-jar bi mu ñëwee wax xabaar bi Kaab ibnu Ashraf daf ko weddi ni ko li nga waxtu dëgg yonent bi mbooloo mënul nekk ñetti téeméer ak fukk ak ñett te ay ngànnaayam bariwul ay fasam bariwul te ay jàmbaaram bariwul waa Màkka na leen xamee ci njàmbaar ak alal ak arme yu doy sëkk li nga wax daal mënuma mu ko gëm gannaaw si nag bi mu amee lu ko leer nañ ci ne waa Màkka gañu nañu leen rey nañu Utba rey nañu Umayya rey nañu Aba Jahl ak yeneeni jàmbaar jàpp nañu Abbas jàpp nañu yeneeni jàmbaar bi mu demee ba am ca lu ko leer dafa mer moom Kaab ibnul Ashraf bi mu meree nag comme poète la woon woykat la woon mu commencé way di bind ay taalif di xas yonent bi di ko def di ko def ba jikki yamul ci loolu mu war fasam dem màkk ba mu demee màkk itam commencé influencé Abu Sufyaan ak kilifay màkk yi ne leen bu leen ñàkk fayda xeex leen ak moom pexe la leen gañee nangam ak nangam di wax ay waxi naafeq xam dellu siwaat Medina continuer na mu daan lore yonent bi ba jikki yonent bi ne waaw ana kan moomu mën a dimbali ci ku bon ki nga xam ne mu ngi may xas ci làmmiñam te defuma ko dara mu am ay volonté yu jóg ku demee ni kii Muhammad ibnu Maslama moo jóg am ànd ak ku ñuy wax Abana Ila Abana Ila mii moom ak Kaab ibnul Ashraf ñoo nampandoo ak ku ñuy wax Ubaad ibnu Bishr ak Xaaris ibnu Aws ñoom ñoo ko fexe ba génnee ko këram guddi daal di koy rey rey googu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kontaan na ci lool ndax ki ñu rey def di noonu bu rëy ci lislaam bi di gàllankoor bu rëy itam ci lislaam bi mu mel ni amoon na benn noon bu rëy bu ñuy wax Abu Lahab ba léegi déggagu leen turam ci xare badar ndax kat moom demul woon dafa am ku mu fay xaalis kookoo ko demal badar moom demul woon dafa wute xare ba mu nga woon màg wante ndax mucc na déedéet muccul ndax gannaaw xare badar ñetti fan leen ca teg moom Abu Lahab ci la feebar feebar bu bon feebar boobu moo rey kon itam la rey abu jahlin ak utba ak yéeféer yu bon ya ca badar jàngoro jooju ñëw na ba fekk si abu lahab ci màkka donte demul ci xare ba sax mu rey ko yàlla di wax ne bu leen daw dee ndax kat dee war na fasam wu gaaw ba lu ngeen daw daw dana leen dab rey leen kon nag jarut a daw dem ci xare ba ak toog ci kër gaa yem ki war a dee moom day day dee rek ñàkk moo tax abu abu lahab da doon daw deeg waaye fekk si na ko ba ci biir këram nee na xare bii de xari Uhud li ko waral moo di waa li leen dal ci Badar dafa metti ñu ni loolu taxoon na ñu ne seen njëg mu jóge woon Cham te yonent bi karoon ko pour nangu njëg te yonent bi doon kar njëg ma te kar njëg ma indi xare Badar moomu ba Abu Sufyaan rëccee ba dem Makka jotuñu koo jaay ndax alal ja ca nekkoon ñe ko moom capitaliste ñoom ñooy ñi takk xare bi pour war a xare ji daanaka ñoom ñëpp nag ñu nga yem Badar waaw Abbas amoon na ca xaalis amoon na ca lu bari Abu Jahlin amoon na ca lu bari Umayya amoon na ca lu bari Utba amoon na ca lu bari waaye ñoom ñëpp dégg nga maam Abbas daal moom moo ci mucc te moom jàppoon nañu ko prisonnier mujj gi nag dañu ko bàyyi mu mel ni dañu jëloon nag marchandise boobu. bàyyi ko Makka wante jotuñu ko jaay lañ ca xalaat moo di ne comme marchandise baa ngi fi nanu ko def xaalis su ko defee jënde ko armu pour préparer ko beneen xare pour mën a dal ci kaw yonent bi xare boobu ñu préparé nag xaalis boobu xaalis bu takk boobu xare biñ ko préparer moo di gazwatu Uhud moo tax yéefir yi daal di takku Abu Sufyaan daal di jóg ci àll bi da ko dëkk mu taxaw fa woo giir fay leen alal pour nu ñëw jàppale ko ci xare bi nga xamante ni sumb ko mu di xare Uhud moo tax wut nanu ñu nga xamante ni seen làmmiñ ñaw na ndax arab làmmiñam dafa ñaw bu la xasee rek dootoo bëggati ci àdduna bi dara ñu wut ay waykat yu ñaaw làmmiñ ndax am na benn woykat bu ñuy wax Kaab ibnu Zuhayr influencé woon nañ ko ba mu xas yonent bi wax ci moom wax yu ñaaw ba wax yu ëpp ba yonent bi ne ku ko jàpp nam ko rey Kaabu moomu moo tourné waat gannaaw ba ko yàlla baaxee mu tàggaat yonent bi ci xasida bu ñuy wax baanat suaadu fa qalbil yow ma matbuul ba yonent bi summi mantoom jox kon nga xam ne arab fonkoon na way ndax merloo nin ci yonent bi ba mu wax ne nanu rey ñu delluwaat kontaanloo ko ci ba mu jéggale ba dindi mantoom joxe moo tax waykat yi ñoom itam amoon nañu wàccuwaay bu rëy ci xare yi ndax daan nañu xas te seen xas yooyu da daan am lu mu daan def nee na Abbas mi nga xamante ni bay tax la ci yonent bi gaa yi wax nañ ko ne ko nag fokk nga jóg ànd ci xeex bi ànd ci xare bi mu ne déedéet xare bi moom duma ci mën a bokk man daal badar doy na ma sëkk ndax la daj ci badar wax dëgg yàlla e, dem nañ ba jàpp ma am naa ci gàcce goo xamante ni daal jógaat di duggaat ci beneen xare daal kooku duma ko def wante am na ci benn jigéen ju ñuy wax hindu bintu Utba moom daanaka ci ñi gën a taal xare bi ci la bokk ndax moo doon soxna Abu Sufyaan moom fexe na ba ne benn jaam bu ñuy wax si ne ko kenn rek laa bëgg nga rayal ma te soo ko reyee danaa la fay xaalis bu bari ki nga xamante ni ndaw si nga xamante ni moom moom jaam bi daf na ko soo ma reyalee Hamza wala nga reyal ma Muhammad wala nga reyal ma Ali maa ngi lay yëgal ni su boobaa loolu mooy sa ngore soo ko defee rek gore nga mu ne ndax rey nanu sama baay te boo reyee Muhammad rek mel na ni reyatuñu sama baay boo reyee xam mel na ni reyatuñu sama baay boo reyee Alioune itam noonu ndax ñoom ñett ñooñu dañu bokk ci giir Quraysh di ñu cher. su Quraysh boo leen rayee rek seen daraja day tolloog sama darajay baay moo taxoon nag jaam boobu moom itam pour mën a jot boppam moom itam mu entraîné préparé boppam bu baax ndax xam na ni itam ñi muy jàmmaar lool ñi mu nar a jàmmaar lool pour gore ay jàmbaar lañu te moo di Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa ak Hamza ak Ali radiyallahu anhum Abu Sufyaan moo nekkoon généralu xare boobu ñoom àggoon nañ ci ñetti junni àggoon nañ ci ñetti junni juróom ñaari téeméer ya yëpp am nañu ay mbubbi am na am nañu arme bu mat sëkk am nañu itam ñaat téeméeri gawar ñoo xamante ni ñu gawar fas na nañoo ci jigéen itam lu tolloog fukki jigéen ak juróom ak juróom-ñaar jigéen ña nag ñu nga yoroon ndënd ya daan tëgg yore woon itam gat eh, xalam ya doon xalam dégg nga am na ci ñu nga xam ne ñu ngay fecc ñii ñu ngay servir sàngara ya dégg nga maam jigéen ñi nga xamante ni tabaarakallaahu ay fecckat leen ak i waykat ñu ngay fecc di way lu tax pour encourager yéeféer yi ci xare bi nga xamante ni moo di xare Uhud am na ci jigéen ñi ñu nga xam ne ñu ngay jooy ndax dañ ne annisa xabailu cheytaan nee neen jigéen ñi ñooy buumu cheytaane cheytaane su bëggee dugg aw nit ca jigéen ña la koy jaare am na ci jigéen ñuy jooy lu tax nee na ñu ngay yuuxu di jàpp ci seen bopp yi naan wëy suñu jàmbaar ya dee woon ca Badar ana yan góor ñoo wan a taxaw pour fayul ñu ngañaay gi ñu gañe ca Badar yuuxu yooyu ak jooy yooyu moo yëngal na xolu yéeféer yi ñoom itam ñu taxaw taxawaay bu ma sëkk pour jàmmaarloog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fayu defet bi ñu amoon ci Badar nee na bi ñuy ñu ngi génn ci weeru shawaal bi mu amee juróomi fan abbas mi nga xamante ni moo di bàyyi ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu jàppoon ko ci xare badar te mu lank ne dootul dem benn xare ndax du dem ci xare uxut abbas bi mu yëgee ne yéefir yi takku nanu ci la bind nag benn lettre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu def ca lettre ba daf ko wan ne ko Quraysh wut nanu ndimbal ci dëkk yi leen wër ak giir yi ba am na nu mbooloo mu takku àgg nenu ci ñetti junniy soldaar ñoom nag li nu bëgg mooy génn ñëw ci yéen léegi nag li ma lay wax moo di ne bul génn toogal Medina rek buñ la fekk see nga xeex ak ñoom bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi jot na lettre bi xam nga su fekkonte ne yonent bi sallallahu alayhi du ummi yi ummi mooy koo xam ne illettré la mënul bind mënul lire buñu ko joxee lettre bi xamul lu ci nekk dafa gestu jox ko benn saxaabi bu ñu wax Ubay ibnu Kaab moom moo liir lettre bi wax ko li ci nekk li tax nag yonent bi liiru ko dañ nekkaana umayyan loolu nag xikma yàlla la ndax ñu bari tuumaal leen ko ci ne moo da daan jàng alxuraan ji waxi boppam la joo xam ne moom moo ko waxal boppam dafa am dégg nga ci ahlul kitaab ñu nga xam ne ñoo koy jàngal ci li ñu ko jàngal nag ci la créé alxuraan bi moo tax yàlla itam lancé ci défi ne bu fekkente ne yonent bi moom moo créé alxuraan yéen nit ñi maa ngi leen yéen arab yi ay bindkat ngeen ñu ñëw làmmi ngeen ñu mën a wax ngeen te ngi leen maa ngi leen di ñaan ku mën a def lu mel ni alxuraan defal su fekkente ne kenn mënu ko ci yéen wut leen dimbal ci seen i biir su ngeen ko mënul itam seet leen ñi ngeen wóolu ci jinne yi ñu jàppale leen bu ngeen ko defee itam du ko mën ba mukk mu mel ni kon loolu symbole la buy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent la bu nga xam ne mënuloon bind mënuloon liir waayante nag ñu ñu fi tuddee borom xam-xam yëpp moo leen jàngal. waaw imaamu Malik moo daan jàngale ca jàkkee Medina daan na wax ne man damay juum keneen ku dafay juum amul kenn ku yàlla muccal ci juum ku dul borom rawdu bi mu di yonente bi sallallahu alayhi wa koo xam ne mënuloo bind mënuloo mënuloo liir te raw ñëpp kooku xikma yàlla la loolu jagleel la bu mu defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Quraysh dox nanu te moo di yéefiri yi ñu ngi ànd ak ñetti junniy soldaar ñu ngi ànd itam ñu ñuy tuddee al ahabish nee na ahabish nag di tax ñu tuddee ko soldaar yooyu àndoon nag waa Quraysh nee na benn turu montagne la bu nekk ci suufu màkk ñu ne déedéet li tax ñu tuddee leen ahabish moo di dëppoo gi ñu dëppoo ak booloo gi ñu booloo pour bëgg a faagagal lislaam fay ko benn yoon yuriduuna li yutfiu nuur allahi bi afwaahihim yàlla nee na ñoom de takkatoo nin pour bëgg nam ma fay sama leer te man yàlla li ma nar bëgg ko moo di sama leer continuer ba faw mu mel ni kon banul mustaliq ak ñeneen ñu dul ñoom jóg neen pour jàppale waa wante duñ ci am ndam ndax yàlla namm naa jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa o Uhud ñu ngi agsi bisu àllarba tombeeg fukk ak ñaar ci weeru shawal toog neen fa àllarba alxemes àjjuma nee na booba nag jullit ñi ñu nga Madina di diisoo ndax dañoo war a génn dem Uhud xare ji wala dañoo war a xaar yéeféer ba ñu fekk si leen Madina wante naafiq bu mag bi ñuy wax Abdallah ibnu Ubay ibnu Salul moom li mu wax yonent bi moo di ne bul génn Madina toog fi toogal Madina bul génn buñ la fi fekkee nga xeex ak ñoom wante ragal rek moo taxoon mu wax ko ak i pexe waaw conseil yonent bi taxul wante lenn ci saxaaba yi ñoom bi yonent bi diisoog ñoom dañ ne ko nanu génn dem xeex waaw ñun daal bu ñu sañoon dañuy génn dem xeex wante yonent bi sallallahu alayhi ginnaaw si gi daal dafa mel ni moo lay ibnu Ubay ibnu Salul ñoo dëppoo ci wax ndax yonent bi daf na leen umkuthu bil madina sax leen madina bu leen fi génn su fekkente ni yëfiri fekk si nanu ñu xeex ak ñoom jigéen ñi sax daneen mën a participer ci xeex bi ku am sa xeer sax sànni boobu nag Medina tabax nañ ko tabax yu baax fexe neen ba mu am sécurité tabax yi dëgër na te itam dugg ca dëkk ba jafe na wante yonent bi sallallahu alayhi wa dañul saxaabam yi di ko ñaan rek ne ko nanu génn amoon na julit ñu nga xam ne ñoom fekke wuñu woon badar te itam ñu ngi doon ngéeju beneen xare am bañu ñu génn ba mën caa amee yiwu yàlla gis nga jullit ñi bu njëkk ñoom fa mu gën a méttee rek fa la ñuy gën a wutee yàlla ñoom ñu ngi doon ngéeju xare am bañu ñu génn joxe seen bakkan ci yoonu yàlla te dund gi yëpp ñu jaay ko yàlla ñoom nag ci ñi E, lakkal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mu génn ci la ñu bokk ñoom jullit ñooñu nga xam ne fekke wuñu woon Badar ci bëggoon a fekke daal xare boo xam ne danañ ci amee yi wu wu tolloog li waa Badar am wala bokk bu koy dab dabaatal nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk na ci loolu nekk na ci loolu ànd ceeg saxaaba yi ci diisoo boobu ba yàlla dogal daal mu gis ne daal génn daal xëy na moo tane yàlla mu ngi jàpp njàmburam waxul dara waxu ko génnal waxu ko toogal waaw waxu ko génnal waxu ko toogal eh, dana soxla lool yàlla wax wante yàlla day jàpp njàmburam ndax yàlla masi am la am choix boppam la am choix boobu nag faale wu ci kenn yonent bi jékki-jékki rek naa ah, kon naa génn. foog naa ne daal comme diisoo naa te al istichara aynul hidaaya bàyyil ma génn ci lu dugg nag biir néegam daal di sol nag mbubu koŋam wekkoo jaaseem daal di jël nag mbuusu fettam sànni ko ca gannaaw ga daal di génn nag taxaw bi mu taxawee nag ba jullit ñi gis ko ndekkee am na ci julit ñi ñu waxtaan ne ah ñun kat li ñu def du teggin yonent bi kat bëggul woon génn wante ñun mën mën leen neen ko ba mu génn léegi nag bu génnee nunu ko wax ne ko daal na seetle daal xelam mu def ko bu mu génnee ñu ne ko ah sang bi nga jéggal ñu de ndax ñun kat ñoo la pamti pamte ba nga génn wante ñu daal dañu bëgg daal li dal sa xel nga def ko yonent bi ne ah ab yonent fu mu masaan sole mbubu koŋam ba takku ba rango jaaseem jaadootul ci moom muy yebbiwaat ay bagage am comme génn comme génn naa daal xare ji rek mu ne yonent bu bu def rek xare ji kon nag duma ko def mukk di duggaat ci biir nekk kon nanu génn rek bi nga xamante ni Abdullah ibnu Ubay mii di nafiq bu bi gis na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam takku pour nar a génn daf ne ah ataa al wildaana wa asani moom de ñàkk na fayda ba topp xale yi muhim te kat mu may xep waaye bu ma dégg loon ñàkkoon ñàkk génn gi moo gën ci moom wante ragal rek a tax mu wax ko ak pexe na fex waaw wante bëgg yonent bi taxul bëgg lislaam taxul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi génn bisum bisub ajjuma bisub ajjuma la génn Medina mu ngi génn ci nisfu shawal ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa na Madina Abdullah ibnu Ummi Maktum mi nga xam ne moo doon silmaxa ba ko yàlla yeddee woon moom la fa muy jiite nit ñi ci julli juróom yi wante bi yonent bi jóge di dem am na ay xale yu ndaw yu nga xam ne ñoom takk nañu pour bëgg a ànd ci xare bi nga xam ne lislaam mosul dañ di ànd xale yi xale yi itam mosuñu dañ di bëgg lislaam mosuñu dañ itam di yittewoo lislaam am na ay xale yu taxaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne daal fokk ñu bokk ci xare bi yonent bi am na ñum ci jox ndigal waaye am na ñum ci tere nee na Usaama ibn Zayd yonent bi tere na ko tere na itam abla ibn Amr tere na Zayd ibn Saabit ak Abu Saïd al-Khudri ak Nu'man ibn Bashir ak Rafi'a tere na itam Sumrat ibn Jundub ginnaaw si gi nag lanu ko wax ne ko ibnu Rafi'a ku mën a jàmm la te ku jub loxo mu daal jox autorisation jox ko ndigal ne ko kon nag yow mën ngaa andi ci xare bi am na ci xale yi ñu nga xam ne ñu ngay jooy ndax rek bëgg a yonent bi sallallahu alayhi wa xale yii nag am na ci ñu nga xam ne feeñal nañu ak njàmbaar gu rëy ci lislaam ku mel ni Usaama ibnu Zayd ndax yonent bi xare bi mujjee takk ci dundam ki mu def général de guerre ba moo di Usaama ibnu Zayd moom Zayd ibnu Haarisa moo ko juróon te Usaama boobu mu ngi am fukki at ak juróom-ñett jiite na ca itam Abu Bakr jiite ca Omar jiite ca Ali ak kibaaru saxaaba yëpp moo leen jiite woon ci xare boobu te boobu mu ngi am dix-huit ans. Euh, Zayd ibnu Thabit bokkoon na ci ñi gën a mokkal alxuraan ndax bokkon na ci katabatul wax yi ñi daan bindal yonent bi sallallahu alayhi ñoo ñëpp ay xale leen woon yoo xam ne yonent bi moo leen formel boppam wante Rafi' mi nga xam ne waxoon nañ ne jamkat la te yonent bi e, joxoon ko ndigal ci ne mën naa bokk ci xare bi wax nañ ba mu demee itam dellu siwul ndax ca xare ba la mujj faatu ñu ni bi bi mu takkoo di dem am na benn mbooloo ci yëgut yi ci juif yi taxaw nañu pour bëgg jàppale yonent bi sallallahu alayhi ci xare bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj na Abdullah ibnu Ubay ne ko waaw yëf ne ko ñii nga àndal ñu di ay yahut ndax ay jullit lañu gëm nañu ma mu ne ko déedéet ñii gëmuñu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen ne Abdullah ibnu Salul wax leen ñu toog ndax fa inna la nastainu bil mushrikina ala al mu ne ko ñun ay jullit lañu te jullit du dimbalikoo ci ab yéeféer bu fekkee dafay xeex ak man kat dama jóg pour xeex ak ak ak yéeféer du ma jël nag ay yéeféer di dimbandiku ci ñoom di sëkkandiku ci ñoom ñu di ay soldaar yu may jàppale ci xare bi déedéet man su ma dee wut ndimbal ci jullit ni man laa koy wuti kon nag wax leen ñu toog looloo tax yahud yooyu bu joon toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wante ba muy génn ànd naag junni soldaar xoolal yéefir yi jóge màkk ñetti junni lañu yéeféer eh, jullit yi jóge Madina junni lañu kon ñi ëpp nañ leen ñaar junni boobu itam ba ñu demee ba ca yoon wa amoon na ci ay naafeq yu nga xam ne ñoom dañ ne woon ay jullit lañu nekk ay naafeq lañu ñooñu nag ñoo àndoon ak Ablaay ibnu Uway bi ñu demee ba ca yoon wa daal ñu daal di wàññeeku ne yonent bi ñun daal wax dëgg yàlla dañu foogoon ne daal tabaarakallaahu dangay toog Medina waaye comme génn nga daal moom génn dem di xare ji moom duñu ko def ñoom noonu la ñu retourné kon junni soldaar yi àndoon ak yonent bi ñetti téeméeri soldaar mujj noonu deltu gannaaw lank ne duñu xare ji te ki leen influencé du kenn ku dul dégg nga maam Abdullah ibn Ubay yeneen eh, jullit ñi nag des di juróom-ñaari téeméer ñu nekk sept cent soldats te mille la woon xoolal léegi ñetti junniy soldats mooy soldats yi ba woo Makka di ay yéeféer yonent bi dajale junniy soldats war a génn ak ñoom ca diggante ba ñetti téeméeri soldats wàññeeku nanu ci nekk ay défaillant lank ne dootuñu xetti wante yonent bi sallallahu alayhi na. wax na ni liko topp ci fas ñaari fas rek la benn fas bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko war bi ci des ku ñuy wax abi burda moo ko war nee na Abdullah ibn Ubay mi dañul di wax rek naan moom daal asaani wa ataa al wildaan mu ne mooy na ma ànd xale ya waaye nag bàyyi leen ren danañ leen leen rey kenn par kenn ba ñu jeex loolu moo doon yéene loolu moo doon yéeneem wante nag yàlla moom dañul di donte sax xare Uhud eh, lu metti dal na ci jullit ñi ndax seen lim dafa néew trop trop waaw seen lim dafa néew trop ndax ñetti junni boo ko bëggee su bëggee jàmmaar loog juróom-ñaari téeméer wax dëgg yàlla foofu nga ma fay nekk rek wante logique amu ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bi mu agsee agsi na Uxud bi mu julli na fa suba ak jiite saxaaba ya ñëw sappe sappe yu jëkk nee na bi mu taxawee di julli nee gis na ci sappe yéeféer yi ne Xaalid ibnu Walid moo féete sappe yéeféer yi ndeyjoor Akramatu ibnu Abi Jahl moo leen féete càmmuñ waaw ki nga xamante ni nag am na ca ku ñuy wax Amr ibnul Aas moom dana mujj sax akrame dana akrama dana gis nga ñett ñi ñëpp ñu mujj nekk ay jullit waaye yàlla moom lu ne rek dafa am fu mu koy jaarale Xaalid ibnu Walid dana nekk jullit waaye tey mu ngi ci rangu yéeféer Akramatu bnu Abi Jahlin dana nekki jullit waaye te mu ngi ci rangu yéeféer yi Amru bnu Laxas dana nekki jullit waaye te mu ngi ci rangu yéeféer yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite na jullit ñi ba mu leen jiitalee leen jiitee ba sëlmal nag ci la commencé nag di leen waar di leen kat mbir mi tiis na ñële bëri nanu ngànnaay seen seeni soldaar bëri nanu seen alal bëri na jullit ñi nag bariwuñu alal seeni soldaar bariwuñu bariwuñu bëri wuñu ngànnaay war nañu taxaw nag tey ci barab bi di Uhud Uhud boo gisee nag ñu tuddee ko Uhud ndax daf di montagne boo xam ne fa mu nekk dafa wéet waaw mu di montagne bu rëy nga xamante ni ku dem ak ñaare soo farloo da nga ko gis wax ne ne barab boobu fa xeex bu rëy bi amee incha allah ci ajuma ji di ñëw ci la ñuy dugg nag ci xare boobu